salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nu ñu leen daan saa su fii ci Sénégal Buzz 221 ni ñu koy defee rek ak neen champion yi nga xamante ne ñu ngi leen di seeti di leen dalal tey dama duggaat fi nga xamante ni moo di jàmm gën toogaat ak xale bi nga xamante ne yaakaar naa fan yi ci ginnaaw toog nañ seq ak waxtaan man ak moom waxtaan bi nag doon loo xamante ne xëy na am na solo am na njariñ critique yi bëri na dégg nañ ci version bu ne ma dalalaat ko nag tey fa yéene seq ak moom li nga xamante ni tey moo di waxtaan 6000 le en activité maa ngi leen nuyu bu baax di la bëgg di la char champion waaw maa lay di la nuyu di nuyu àdduna di nuyu Sénégal di dalal ñëpp jàmm di ñaanal sénégalais yëpp yal na yàlla yombal seen poos ba ñu mën a am xar ndax si liñ jugee quoi ku ne xam nañ mbas bi ñu jugee carrément gars yi toog nañ ay mois liggéeyuñu moo tax yi ñaanal ñëpp yal na yàlla yombal seen poos ba waajur yëpp am njëgu xar yóbbu ko seen njaboot. loolu daal la ñuy wax. loolu la ñuy Sénégal yàlla na ko suñu borom defal waajur yi nga xamante ne taggat taxaw na suñu kanam te dëgmal ñu ah ni ñu koy waxee rek doomu jàmm gën la champion la ah, li nga xamante yaakaar naa yaakaar naa mooy lamb ji nga xamante jëmal li nga xamante mooy goxam ci kanam 6000 ci biir jàmm gën. waaw 6000 ci biir jàmm gën gis ngeen ko 6000 bu xëyee day liggéey bu liggéeyul su wàccee moo ngi mu ngi nii toog ci biir kojam mu ngi toog ak jàmbaar yi gétt sama gaa ngi nii gétt gi yàlla séddee moom laa yor di daan sama doole te teewul am naa beneen liggéey liggéey am naa beneen liggéey liggéey service mais am naa beneen business may def ndax tarke ndaa laa daal du ma toog quoi yee damay liggéey daan sama doole jëm see jàppale xam nga maire beeg paa bi ak néew doole yi ak andi jaam yi yee tarkindaa nga lu moo def tarkindaa mooy lan waaw mooy jàmbaar tarkindaa boo ko déggee tout récemment rek sama patron sunu yaakaar sunu lépp wax na ko barki démb mais Siteu waaw mooy dama nekk si yoon boo xam ne carrément toujours dañuy innover mooy yow nga gëm yow sa wàllu bopp dañuy innover nga ñàkk gëm dañuy innover si yoon boobu la ñuy nekk quoi yee ñu di ngay curkindaa ay tarkindaa lañu. Mhm. dañuy innover ay tarkindaa lañ ah yaakaar naa tey li waral sama dellu si waat toogoon nañ fi fan yee passé toog def waxtaan boo xamante ne xëy na waxtaan bi am na solo mais dafa yënga réew mi. waaw avant tout d'abord maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu jàmm sama gox. loolu waxoon naa sax du si ñëwaat mais dama ñëwaat quoi xam nga ma si ñëwaat ndax damay seet sama damay sama der quoi man contre ma Ama Baldé encore une fois de plus pour réew mi xam loolu man ma contre Ama Baldé man bañ jëriñ la ma amal ak bañ jëriñ la amal Ama Ama ma contre mu ngi bëri di daan man ñaa ko contre mu ngi bëri di daan kon ma contre Ama Baldé man bañ jëriñ la ma amal man siibil man damay si barte Ama Baldé barki bëri fi combat moom Malick Niang samay 400000 laa teg si kaw loos bi man sii ma te dëggu ma Pikine man doog maa ko teg barki Serigne Mame 400000 laa teg si loose bi man dama koy supporté man Pikine nekkuñu samay noonu. yee ba tey ku ne di génn carrément di classe 6000 c'est que dëgg taxaw ñu war koo wax yee man sama rôle leen dong la mooy li en activité bi nga xam ne carrément ñaan ko yàlla bu tëddee feebar ak ku mu doon ak ku jege mbër proche de mbër proche de lutteur bu tëddee feebar 6000 rôle la xam mooy carrément mu ma génn ànd ak presse bi ànd média ànd ak nit. ñu ñëw taxaw ko man aw ay millions a ah. mais am na ay nit ñoo xam ne carrément tey su ma si woowoon dix bu cinq yi ñëw carrément def différence man borom bi loolu ma séedee quoi yee man loolu mooy sama rôle mais du jaam gën si kaa mbaaw donc laa yem yëmbal ci mu soxla damay dem ma soxla carrément sama grand Pape Sarr su ma tàllalee loxo mu wuy si ko ndax ñun dañuy liggéey quoi dañuy dimbali doomi aadama tey lu dal tey ji ama lu ko dal tey man six mille mun na maa dal fii léegi barki Serigne Fallou Mbacké mun naa dal Ama Baldé mun naa dal Siteu mun naa dal keneen ak keneen mais ñun suñu rôle mooy mooy ki nga xam ne tey carrément tey da tëdd te tëdd ak sogo borom bi moo tax nga tëdd ñun dañuy jug ànd ak média yi ànd ak Sénégal doxal la jaamoo ba keroog borom yi carrément def lu gën ñun mooy suñ ñun loolu mooy ci rôle pour Sénégalais xam ne carrément 6 loolu mooy rôle am Sénégalais xam ne carrément simim loolu mooy rôlam ba taxit xëy na dëgg googee nga wax ñu bëri dañ ko jël jàppee ko tooñ wala joxeñ baaraamu tuuma benn nit. waaw man néew ma fi sax carrément dama naan damay tontanti sax ay damay tonté ay yenn kolosaar yi sax non man du amul benn kolosaar boo xam ne naa taxoon naa dama la jéem a tontoo xam nga Bayla mi taxaw barki démb di wax Bayla kolosaar bu taxee naan moom doomu Pikine la ak nii ak gën ju ma dëkk sax moo fi jël am wàll waxul dëgg Bayla Pikine ju ma dëkk carrément borom Pikine borom ginnaaw raay oo oh, ñu naa ko zéro bi moo ma yar biir Pikine man may tarkindaa di doomu dëkk bi maanaam moom ma gën a xam Pikine moom ma gën a xam jàmm gën man nekk ma fi di xamante man sama rôle leen donc mooy leen leen donc la mooy bàyyi laa biir këram sa bu amoon mbër bu nekk feebar mu soxla loxo ak dimbal man siim di génn ànd ak média bi ànd ak samay mbokk ànd ak sénégalais yëpp ñëw jàppale ko soutenir ko pour mu mën a jug si lu mu nekk mais ndax xëy na toll nañ foo xamante ne yaakaar naa ni xëy na yenn kàddu yi nga xamante ne gars yi ñu ngi koy jokkalante ndax dem du dem ba indi en diggante Diamaguène ak Pikine non Diamaguène Pikine du mu sa am en xam tax loolu Pikine moo jur Diamaguène Pikine ak Diamaguène ne musa am en mais am na loo xam ne bi nga sëkkee da nga koy def mooy lan mooy làmb làmb Pikine ak Diamaguène bi nga sëkkee da koy def mais bu jeexee jeex na ñun dox wootuñu violence ñun wootuñu dara loo xam carrément tey day yee fini si réew mi ñun ay exemple leer nañu nekkoon nañ si tànk yoo xam ne carrément tey peut-être borom bi ñu dimbali si la teg ñu si yoon ak aduna ba tey ñu toogaa fi sax di wax ak yow naaj mais moo tax lépp li ñuy dugg rek balaa ñu def dara rek dañuy ànd suñu kilifa yee noonu la demee. lépp lu ñuy dugg dañ ci ànd ak suñuy kilifa ba taxit dama am benn kàddu boo xamante ne foog ma génnee ko si ñun ñi nga xamante ne tey ñooy communicateurs yi parce que jàpp naa ne ñun ñoo mën a defar ñun ñoo mën a yàq nañuy xool saa su ne kàddu yi nga xamante ne ñu ngi koy génnee si diggante nit ak ay nit ah loolu tamit yaakaar naa kàddu bu am solo la si ñun communicateurs yi mais à part loolu tamit ban message ngay lancer nga xamante tamit mooy waa waaw Pikine mouvement bi ñu def barki démb pour jàppale carrément Jibi Ama barki Serigne Sidi Mbacke ma yaakaar 6000 man sama Pape Sarr woowoon tey wala Raba Maki woo wala Ama Bale woo ma tey ne ma 6000 soxla na leen pour mouvement boobu dama siy guy si xam tax loolu ma nekk ma pour sama gox dongo Pikine su ma soxlawee damay dem ginnaaw raay Fass Golta bi ku ma soxla pour un bu tëdd wala kii jege mbër carrément tëdd man képp ku ma woo si àdduna mbaa ma yëg ko barki yeneen ti yàlla ma xam ne damay dagg samay activité dem dox ko carrément aw ma ay millions kon ma ko waxee naa ay nit ñoo xam ne carrément bi nañ faj faj ji. Mm-hmm. mais borom bi kenn mënut a xëccoog moom. Mm-hmm. du dëgg tey mun naa génnee 5 milliards. alors que 100000 francs moo lay faj ma génnee 5 milliards teewul da ngay wuj bu la su dem. Mm-hmm. man mi waxee 6000 man pare naa pare boo xam ne tey barki alxuraan di kërim gëdd gi ma nekk nii carrément tey su ma yàlla tey moo usiju dara yee. moo tax it yaakaar naa ne loolu tamit message bu am solo la ah, ne nit ñi tamit di bàyyi xel bu nit di ne ñu jëlee ko fi ñu koy waxee mais pas ñu koy déggee fi nga xamante ne tamit foofu la wax ci toll lu ma wax si Wally Seck ba tey du ma si dellu gannaaw te laa koy waxaat te laa koy waxaat xam nga xam nga réew mi daa bëri ñuy ñuy yelwaan moo rafet rek mais boo téye sa micro naan ay maay défendre Ama Baldé ak maay défendre Wally Seck ak ay xeeti yelwaan la rek barki yàlla Wally Seck li mu ko wax dafa leer te ma koy tey man mi di waxee kaar man teral na ma teral na ma tey teral na ma teral na ma saa su ne fekk naa ko pëñ bi encore teral naa ko fekk naa naa ko fekk baat rek sama xaalis. du kaddu loolu du man gisoo ma ko kaddu attaque ndax ki wax ki génn sorti barki dem wax bàyyi laa man considéré ko nit ko boo xoolee nga xam ne kooku warul ko maamam boo ko ñu ko boo xoolee xool 6 millions ak lu mel mi ak teraanga ju ma yàlla ci borom bi séddee nga xam ni carrément kooku man ak moom bokkuñu barki alxuraan karim dañoo jàppee kàddu yi nga xamante ne na yëkkati nga ko teg ko ci Ama wala nga teg ko ci Wally Seck ne tey xëy na Pikine mënul ñàkk juróomi personne yu faj ki nga xamante ne mooy Jules Baldé ñoom gisewuñu ko dañ ko jàppee kàddu attaque si mi dafay attaqué waa Pikine yow yaa dégg yow dégg nga sa wàllu bopp interview Jules Baldé Junior ne ne ordonnance trois cent mille francs la am amul kenn koo jënd biir Pikine mu jaay écran yaayam dem faje ko ordonnance xel nangu na loolu moo wax loolu man li ma dafa leer carrément man li ma wax dellu ma si ginnaaw man aw ma benn intérêt si àdduna naan damay teg ama na ko su wala damay wax ama lu metti non non man man doxee ma noonu sama àdduna wax encore rek ama dama koy bëggee te këram am na ku fa nekk dara tam dama koy bëggee mi Jacob Bale barki démb rek gis naa nga invité ko dama koy bëggee bu baax a baax ndax ak lëppam kon tey Ama man tey mun ma bëggee tey deretam tey bu ko bañ Ama tey bañ ko amal ma njëriñ barki Serigne Fallou Mbacké Pikine samay nit doo nga fa nekk ay copain Ama xajoo samay copain la kon man tey amu benn intérêt carrément di taxaw naan tey damay contre waa Pikine la leen contre leen dong la lu ma leen dolli leen dong la carrément seen solidarité bi nañ ko yokk gis naa mouvement barki démb man noonu laa ko bëggee boobu na carrément man noonu laa ko bëggee nit day jàppale doomi aadama yee mais Pikine boo la wooyee xam ne carrément Pikine lu dul ak naka su noonu sawar ñu si mais man su ma leen waxee loolu c'est c'est juste benn appel may lancé quoi pour ñu jéem a jàppante ñoom seen biir mais bi ñu jàppante sax mais nañ ko gën a yokkoo man tey mën naa bu jógee carrément jënd kër Pikine waa kenn mën na fi jéen jénn ñëw jënd jaama gën kër kon geste bi na rafet quoi na rafet trop moo tax am na kàddu yoo xam ne ka man du ma sax tontu ndax ay référence lañu àdduna may déglu àdduna may bëggee moo tax lu ma war a wax rek dama ko war a xam quoi yee noonu la demee critique yi nga xamante ne xëy na sénégalais ñu ngi koy teg ci kaw simil lan nga leen tontu waa simili ku ko critiqué da ngaa xamul lekk c'est que li nit ñuy bañ maanaam man lu laa def man duma ma nit kenn mamam xanaa déggoom laax barki Serigne Touba Mbacke lu leer laa lay wax man ak ku mu doon ci kaw suuf boo defee li xam ne carrément du yoon ak ku mu doon si àdduna nag man pare naa pour wax la ko ndax du ma si dellu ginnaaw tey jël sama téléphone woo la carrément wax la sa li muy def moo ko àdduna yëpp dégg ko moo gën loolu jëw lay doon quoi te man du naa fek man doxee ma si noonu man sama lépp damay damay deret di lancer encore beneen appel journaliste yi journalisme yombul de maa la wax lu garaan nga bàyyi yombul euh, Pikine bu am na seen site ñoom six minutes génn am benn interview bu mu wax yow nga ne journaliste nga dëkk biir Pikine nga la waaye wóoree man tigi naa la sama porte ñëwul ba si man dama six minutes lii ak lii la ma leeral nga jox askan bi mais waroo toog Pikine di invité say say dofak ñu xam kenn naxuloo leen ñu ay waxu dofak ah nga ne fi carrément di cukk di jaxase ay nit balaa tey moo ko romboon carrément dama ko ne 6000 tous dara du xew su ma romboon dama wax 6000 tous dara du xew man 6000 aw ma sens indiri jaay ma dorog sàccuw ma géej ma àdduna ñëpp xam nañ ma damay tedd dem sama xaalis di dimbali ay doomi aadama li ma borom bi jox ma xam ne lii la ma borom bi jox du dëgg mais boo fi naree nekk carrément tey télé dëkk sa koñ nga andi jeunesse boo xam jeunesse boo xam carrément lu musuma gis jeunesse bu ni lee nii. barki Serigne Touba ma kooku ba léegi si làmb nekk ni ko wax gars yi génnee si làmb journaliste bu ñu leen noonu mosuma ko gis yow boo dikkee si gox sa carrément mais bu ngaa faral gox bi mais nga teg ko si yoon quoi na ma seet si six mille waral li mais li mu doon def barki démb na am sama diggante maa bàyyi laa loolu ay jaxase la te góor du jaxase ay nit journaliste nga dal joxe des bons exemple ndax nit ñi dañuy roy si yow am na xale yoo xam ne carrément ëllëg seen avenir dañ ko bëgg teg si journalisme mais nañ ko teg si yoon nañ ko teg si accès tey li mu doon def ni carrément ay jaxase la dugal nga xool commentaire yi ndax coow du am diggante Pikine ak Diamaguène Pikine ak Diamaguène dara du am man lu may def carrément man lu may def nii nii nii nii nii da dama see ànd ak samay nit ànd ak sama patron tàggu ko mooy jàppale ay mbër mbër bu tawat ma jàppale la ak ñeneen ak ñeneen ma jàppale leen man nekkuma sax maanaam kon maanaam lu nit ñi si réew mi man nekkuma si loolu man dama nekk sama yoon di pressé tey Pape Sarr nu mel Pikine tey àdduna xam ko man simi noonu laa bëgg a doxee biir Diamaguène Fass Mbao yëmbal Malika benn barak si noonu laa bëgg a doxee ku feebar carrément ñu woo ma tout récemment rek may lancer appel waaye yëmbal encore ma ñëwaat si ñoom yëmbal maa leen ñaan te yàlla tax yëmbal commune bu mag la quoi at nañu xam ne di ñaan sama maire sama xarit Bara Gaye yëmbal am ngeen benn jeune talent fa nekk boo xam ne kaar moom mbër la muy mbër bu am talent njabootam yaakaar ko waa këram yaakaar ko mu nekk soutien famille moom dong mu bëri benn combat def deux semaines borom mi natt ko tey mu jëlee si tawat ba paralysé ñu ngi ñaan te yàlla da Modou gis naa geste bi nga def mais maa ngi ñëw sama xarit Farel maa lay woo waa Dakar Buzz waa Sénégal Buzz 221 maa ngi woo ngir yàlla wu rusul bi ñu tëbasee pare nga ñëw defar ko interview te yàlla dong tax ñu jàppale ko te yàlla tax mu mën a jug ndax feebar bi yàgg na léegi mu mot 4 loolu la lay sàkku ak xanaa keneen mooy booy Malika mi nga xam ne carrément barki démb maa ngi doon dégg nekk général Malika muy nit ku baax général ndax saa ma ko wooy mu ne ma Symbiose maa ngi hôpital ànd ak booy Malika ngir ngir lan nga ñu mën a taxaw booy bi. ñu mun koo jàppale général Malika encore Malika da nga yaakaar waa këram yaakaar ko muy soutien de famille àdduna yaakaar ko li am am na may ñaan CNG di ñaan ministre Matar Ba ngir yàlla wu rusuur yow nga xam ne yaa nekk si pouvoir bi ngay ministre bi sa mbaax ñëpp xam ne ko ma lay ñaan te yàlla tax ñaari mbër yi nga xam ne Karma ñoo nekk si biir banlieue bi muy frontière ak boy Malika may ñaan ngir yàlla wu rusuur nga ñëw taxaw leen yegg ak waa CNG. ngir yàlla wursu man si bi maa ñaan loolu nga ñëw taxaw ñaari lutteurs yooyu noonu ndax seen famille da leen soxla imagine Tabaski frontière mënoon gën ay xar booy Malika mënoon gën xar mais tey mënatuñ gën xar tey booy jukru benn cent cinquante mille jox leen ko carrément tey xar xar tey bu ko keneen kër gi keneen ko rey mais du mais ay jeunes la ñu kon may ñaan Matar Ba laay ñaan man tout droit ñaan ma Alioune Sarr ñaan ma kenn Matar Ba ñaan mu ñëw taxaw ma ñaar ñooñu ngir yàlla wursu ñu attaleen loolu dong laay ñaan loolu lay ñaana ah, ba taxit dama koy nawloo di kontaan ci li nga xamante ne mooy geste bu noble geste bu rafet bi nga xamante ne def na ko ngir taxawu ñi nga xamante ni ñooy di ay doomu Sénégal ngir taxawu ñi nga xamante ni ñooy di ay yaakaar naa ne jullit lii rek la mënoon bokkam mu nga ñaanal ko njekk mu nekk ci jafe-jafe nga ñaanal ko suñu borom taxawu ko ah. yaakaar nga xamante ni tey ñooy di doomu waaye ma laalaat benn point tuuti ah nga xamante ni tamit ñooy communicateurs yi ñooy journalistes yi nañuy rafetal nañuy xool kaddu yi nga xamante ne dañu koy génnee ci diggante nit ak nit tamit xool kàddu yi nga xamante ñu ngi koy génne ci diggante dëkk ak ditan ndax yaakaar naa as kàddu mën na tas waaye mën na defar ah. kon saa su ne rek lépp lu ñuy wax rek nday rafet ah. timit lan lan lan nga xamante ni tey yaakaar naa ne tey bëggoon nga ko développé te El la ko waaw li ma bëgg a développé mooy bi ñu tëbaskee pare incha allah bu si yàlla andee dafa am benn mbër boo xam ne karama dama a décorer may naan ne musuma ko supporté si làmb andi naa mbër bu ne mu daan ko faral naa mbër bu ne mu daan ko dama ko bëgg a si bi ay gestes yi muy def muy Balla Gaye numéro 2 ma si woo waa Lutte TV di si woo waa Sénégal Buzz ma si woo waa Dakar waa Dakar Buzz ma si woo site yëpp. ñëw ma décorer Balla Gaye 2 xam na moom moo doon décorer Balla Gaye 2 tey képp koo dégg Sénégal feebar na muy lutteur wala sportif en activité Balla Gaye mu ngi si biir. mais buñ kenn waxul sax mais boo gëstu ba gëstu Balla Gaye 2 enveloppe mu ngi suuf wala am na ku mu la boole mu taxaw la kon geste boobu noonu Balla Gaye 2 di def carrément. wóor a alxuraan dama ko dama ko si décoré ba àdduna xam ni carrément 6 000 moo décoré Balla Gaye numéro 2 te ma wax la loo xamul le tey bu doon bëre suba sax du ko faral dama déggu bu doon suba suba suba Balla Gaye 2 du ko faral xam tax lool c'est parce que faral ma ko ni ku baax ni ku honnête mënoo lim kenn si ci doomi aadama mënoo la Balla Gaye moo la wax lu ñaaw si ni Gaye numéro 2. mais kaaw làmb simili faralu Balla Gaye numéro 2 man làmb kenn laa faral borom bëri sama laa faral borom bëri jàmm gën si kaw moom laa faral xare gëdd gi bu ñu ñëwoon tey gas kaama suul ko muy Siteu billaahi wallaahi wa taala waxuma la waxul làmb de mais xolom ak geste bi muy def moo tax ma waxee la foofu quoi mais Balla Gaye numéro 2 laa bëgg a décorer bëgg a yëpp ñëw jàppale ma ci kooku su ma sañoon tey mooy nekk président lutteur en activité lépp lu njëkk si doomu aadama si feebar bi Balla Gaye 2 mu ngi si biir ma koy ñaana jàmm di koy ñaanal guddi fan di koy ñaanal soxnaam buri bàccali di koy ñaanal njaborom di koy ñaanal ay doomam di koy ñaanal lu mu bugg si àddunam yàlla na ko yàlla may mais teewul nag lu ma la wax tamit laay waxaana ah, man si war dama Balla mais bu dugg see nga xam naanaan mais si xolom maanaam si nit ak nit si julit ak julit si tey li ngay jugé si mil te nga xam ma ak lu muy jugé yow te xam la loolu laa jugé moom yee moo tax carrément Balla Gaye numéro 2 encore itam ma lay waat sama ñaari sama ñaari frères yi ñoo xam ne carrément tey si man lañ yaakaar muy booy Malika ak frontière Balla Gaye numéro 2 dama woowuma Sénégal benn star amul kenn ku may woo ndax booy ay ay ay ay lutteur la ñu si làmb la leen dalee dama woo basketteur ay mbër la ay woo kon su ma nee bay woo mbër dama woo beneen mbër groupe Balla Gaye numéro 2 moom la yàlla fi moom moom la fi yàlla teg muy mbër boo xam ne dafa disponible si côté boobu noonu tey waxtaan ma dëgg la quoi. il e très disponible carrément si côté boobu noonu moo ko sama mbër mi Siteu dana disponible si côté boobu noonu carrément moo may dox na mu ñëw jàppale encouragé ma Siteu moom sax xam naa dina ñëw mais Balla Gaye man simi maa ngi saako lay ñaan te yàlla dong tax nga ñëw jàppale ma tey carrément ñi mën a taxaw frontière ndax feebar bi mën na quatre di jeune talent boo xam ne gaa làmb xam ne ko Modou Mbaye defar nga ko interview mais bu nga moo mu ngi bëgg a yàgg am na deux ans su ma seen ñooy defal ko beneen interview am na gën koy gis ñoom Balla Gaye numéro 2 daal laay woo mu ñëw taxaw booy Malika mu ñëw taxaw ki nga xam ne carrément tey mooy frontière na ñaari mbër yi carrément ay jeunes lañu àdduna da leen xaar seen waajur ñoom dong lañ yaakaar yee ñoom nañu amaat wërgu yaram rek waxul la am nag bëree loolu après la mais nañu amaat wërgu yaram rek Balla Gaye numéro 2 loolu dégg naa la ko te Sénégal yëpp dégg nañ la loolu man si mi jotat naa la ko te tamit nga na nga préparé sama décoré bu ma la waaye décoré ñu koy kontaanee moom it ah bu baax a baax a baax ki nga xamante ni moo di Balla Gaye 2 yaakaar naa ne tamit lu baax rek am solo ah def lu baax rek am solo ci réew mi def lu baax amit bi muy def ci réew mi nit ñi nangul nañ ko ko gis ko ko ah ba ñu ngi ko koy jaajëfal te naan ko yalla ko suñu borom kàttanal ah ba saa su ne lépp la nga xamante ne mu ngi koy def ci lu baax rek yàlla yokkal ko ko mais benn message ngay lancé nga xamante ni tey moo di waa Pikine ci rafetal. Pikine message bi nga xam ñoo xam Pikine nee mbokk ak mbokk ndax yaakaar ne seen diggante ak ñoom ay mbokk lañ ban message parce que yaakaar naa ni rafetal rek moo mën a am seen diggante ah ñun juguñu ngir yàq juguñu ngir jaxase mais dañoo jug ngir rafetal seen diggante yow jugoo ngir yow jugoo ngir yàq mais journaliste Pikine bi carrément ki invité woon carrément bàyyi laa barki démb kooku seytaane la jaxase ka la rambaaj la kooku du journalisme moom journaliste da nga koy jàng jiwaat tuuti mais ba amul diplôme sax mais nag da ngay jàng ni ñuy poser ay question doomi aadama tey bu dee Siim wax na dara tey ba Bayla gis boppam mais amal na yoo xam amal nay poser tey diggante day rafet Bayla maa ma suñu diggante dara xew na tey bi na doon jàppante tey bi ñu doon ba ñu a jàppante man moom sax Pikine ñi muy ànd ak xaj bi samay nit la ñu man fii jaamu nga wax yi noob fi nekk kon jàppante am fa man ama suma amaa la booñaa suma booñaa la ëmacien suma ëmacien la man la laa bokk kenn mën maa génnee Pikine da sil bale sama deret la Kaaw nag digg na carrément lu ma wax barki dem moo ko soo kaana kooku soo kaana dina ko tontul boppam man loolu lu ma si yegg moo ko soo kaana bàyyi laa loolu soo kaana dina ko dina li nga waxoon barki dem moom soo dina si tontu quoi ndax soo xam naa ne ku koy woo say problème moom ak média jàpp naa ni fa la raay bi man six mille la maa ngi ne ndaw laa liggéey liggéey ma ne carrément moom sa woo naa ko moom bàyyi laa moom bu ko neexee woo naa ko mu ñëw jàppale ma liggéey may liggéey mooy mbër bi nga xam ne carrément dafa tëdd wala kii ànd ak tëdd àdduna bi xam ko nañ ñëw ñu ànd ñu liggéey ñu jàppale booy booy dañuy bëgg ñu leen jàppale ma si woo am sama xarit Mor Talla Fall Sandaga di si woo Boos Baara sama xarit di si woo ko xamee carrément sama papa la Pam Mel président ADES ma ko si woo mu ñëw jàppale ma encore si lu may xeex pour ñaari booy jug pour frontière jug waa école de li a Birama bi yëpp wur alxuraan guddeeg bëccëg kosi bi ak ñoom yoro seen ñëpp dana sonn si boo bi fee nga dem Malika booy Malika général Malika naratul defatu dara général Malika wóor na yàlla heure ma ko woowee ba ne maa ngi hôpital wala heure ba ne maa ngi nii booy bi kon ñooñu danaa war a jàppale ñu jàppale leen mais ma siy waat Balla moom laa siy waat ndax xam naa ne mun na ko Balla Gaye maa lay waat ngir yàlla tax bu jaree man ma jooy mbaa ma sama laaf yaa sax dama koy def nga ñëw jàppal ma booy te yàlla donc tax ngir yàlla wër jour loolu laay saako si yow Balla Gaye numéro 2 jërëjëf ah, te li nga xamante ah. yi nga xamante ni mu dox ngir jàppale ñi nga xamante dañoo mënoon te mënatuñu ñi nga xamante suñu borom teg na leen nattu te mënatuñoo demal seen bopp yaakaar naa ne boobu la porte ngir dimbali leen delloowaat si leen si li nga xamante moo di làng jooju lañ nekkoon ah. kon dañu koy kontaane bu baax a baax a baax di ko ñaanal suñu borom yàggal taxawaayam bi nga xamante ne moom la ama waaye taxawee ko rek ngir jàmm gën taxawee ko rek ngir Pikine taxawee ko ngir parcelle taxawee ko ngir fenn waaye daf ko taxawee ngir Sénégal ah ndax yaakaar naa julit julitay mbokkam julita mën a jàppale mbarodu julit waxtu maak leneen ak leneen kon si simil ñu koy bëggee di ko bu baax a baax a baax lan ngay tàggatoo mbokk internet Sénégal Buzz surprise bi dama am combat yi loolu <laughs> ma ko dama <laughs> saa ma ngi taxawal sama combat combat bu rëy lay taxawal ni mu ne nii. adversaire Big Pato laa war a ku daan xare alaaj mbay këcëb loolu dara dàq Big Pato actuellement alaaj mbay seen combat a këcëb buuse sama xarit bi borom États-Unis Big Pato la Sam di taxawal ci combat qualifié deux la ñu war a bëree ñu koy taxawal Big Pato ngir yàlla wërsul na carrément jëlal avance bi na Big Pato dama ko war a daan dem jëli sa waay dem jëli ji alaaj mbay leeral ak Alaaj Mbay man moom suñu combat kenn ko liggéeyante combat Sénégal combat capital la xam naa bay laa loolay daw moo tax muy défendre waa Pikine Alaaj Mbay dóor yi laa ko war a dóor mu ko war a dóor yi mel ko si lamb Simine nga jël avance policier man damaa roñ kaso bi nag man damaa roñ kaso bi de man daaw maa la sàcc wax la lii uh-huh. waaw yee non non bi Podo maanaam suñu combat àdduna Sénégal ñu ko bëgg daaw da nga ne a moom roubé ba commandant cun wax ak ñun Big Pato suñu commandant àdduna ko bëgg Big Pato dama ko doon dóor dóor yu métti barki Serigne Bamba dama ko doon dóor dóor yu métti defeere ko Big Pato xomba la dëkk passe 1400 la seerul barki yàlla ba koy defeere <laughs> billahi wallahi taalaay ba koy defeere Big Pato ma ko daanee ma xaari Alaaji Mbay tegle samay tànk raj sama ataaya Alaaji Mbay man ak moom laa ilaaha illallah kooku bu jaree ma jox ma dollar promoteur bi 3 millions la ma koy jox Alaaji Mbay foo taxaw Sénégal bi yo ngi yokk say entraînement ànd ak Ama Baldé lu ma meloon waa Pikine ñëpp si laa koy xëpp Alañ Mbaye sama commande maam moom loolu final la loolu Sénégal Algérie la naa la xamaloo xamul le ku sa papa gërëm takkusaan de sa yaay gërëm la tisbaar buñ noddee fajar rek xamal ni raw nga man raw naa bi yàgg <laughs> barki yàlla lu métti laa koy tegal Alañ Mbaye billaay ma ko jàppee wax ma xam lépp dëgg la maa nga yoodal nag xamaa ne kitib da koy duma daan ko entraîné wul deful la day naxaatal barki démb yàlla loolu marié Alañ Mbaye day naxaate Alañ bu soirée tiyoon nii léegi gisoo carrément penc wala fokk day naxaate de tongtongaate lu ne lay defaate billaay damay defeere passe 1300 alaaj mais passe seerul lawbe la xombal la dëkk 1300 ay passe am dama koy dóor dóori mét ko kalandoo mu toog si kanam tak defeere ko barke yàlla billaay walaay taala siwil ngay waxal lee tarki ndaa bu ñuul bi defeere xew billaay la koy defeere defeere moo la gën a xam ne sim la koy defeere mais dama si wax nag comme comme combat bi yàlla dogal na Eh, ànd sama xarit di entraîné di toog nang nang di liggéey matin soir mais ñu bëri xam ngeen sax mais si ngi liggéey liggéey bu big Pato moom mooy premier adversaire Sam combat bi nag gaaw actuellement taxaw laaj ma la dara simil jekk na pare man yàlla teral na ma tey teral na ma pare eh, Malick Ndiaye transfert Fouta daa bàyyi sama avance dem lekki avance Bour Siteu man Bour ko mbéjee mu xam ay Bour Siteu yi ma leen mbéjee mu xam barki la rek play boy la de day cour boobu noonu ñooy machine roi des arènes ay Alaaji Mbay ay Buuse yi ah ay Liiru Jaan ah ay Big Pato ñun machine roi des arènes dama leen di noo ko pare doo ko yëg ci kaw fa laay tàmbalee dama leen di duma dumay mét doo ko yëg ci kaw barke Sëriñ Bamba Mbàkke ragaluma si loolu comme si jàpp dama lay defee rek Big Pro dégg naa kees la dëgg passe 1200 la seerul li ma koy defeere bi la alaaj may xombal kon ma koy defeere 1300 barki yàlla ñooñu ñooñu ñooñu dama leen defeere barki yàlla leen defeere <laughs> billahi dama leen defeere mais Sam nag ñaanal leen ko baax comme ak Colifay 2 maa ngi bëri spécial bi Sam ma ngay dox sama digg na Big Pro bi Big Pro temps gis naa la nga ànd ak moo loolu di liggéey maa ngi ànd ak Reug Reug ànd ak Siteu Mama Lamine Thiat Fora di liggéey lu méttee méttee mais nag fàttali naa encore beneen message da ngay lancer encore euh, maa ngi euh, Alioune Sarr bëgguma woon sax ñaan mais dama lay ñaan na sama papa nga euh, ñax jëriñu fii la dëkk si gox bi quoi damaa bëgg ngeen wàññi sanction bi ndax tamit soutien de famille la ñax jëriñu soutien de famille la quoi nañu wàññi sanction bu baax a baax dama nga xam bu baax ma xamee sama loxo man ñax ñu bëri xam ñu ko rek si dana laa gën a miin mën naa gën a àndal mais ñax jëriñu ma jàngal bëre billaahi wallaahi taala laa koy waxaat te laa koy waxaat nii tey dama bëgg Alioune Sarr mu wàññi gaa yi pen bi ñàkk ñëwaat ci ay njabootam quoi ndax champion la mooy soutien de famille këram ma koy ñaanal jàmm bu baax lu mu jugee nag ma koy masawu erreur la erreur la am na gars yi comprendre nañu géejuwaay ak caaro yi dara mosul du ñaaw te dara du ñaaw Alioune Seye tamit nit ku baax keroog ba taalangeer bi feebaree bokk na ñëw jël si taalangeer di ko yóbbul faj ko Alioune Seye numéro 2 muy nit ku baax nit ku gore du nuyu yàlla tamit sama doom ji booy Dakar borom ñaari tari suma xarit nga ma dara mosul ñaaw sama diggante man ak moom di nuyu frontière numéro 2 sama doom di nuyu xeysar mooy booy ma la présenté woon barki démb xale boo doon fële di nuyu Luis Ndiago sama doom tamit di koy bëggee di ko tiitaroo di nuyu waa jàmm gën si ka am mbaabu di nuyu ñoom Baba Jaxal booy yëpp maa leen nuyu mais Ankara li am am mooy carrément mais son combat bi Podo xaar leen ko ngir yàlla simil day yoole star ba mu yoolaw booy bu mu jàpp da koy defeere billaay booy seen passe la weesu mille nga weesul ñetti téeméer billaay dama leen defeere simil kontaan naa ci a a Euh, di nga ñaanal sa caméraman bi nga xam ne carrément ku cool la ku baax la barke alxuraan gërëm dinañ ñaanal jàmm di ñaanal site bii Sénégal Buzz 221 ba koy ñaan ma doon site boo xam ne ay télé lay nekk di nuyu seen DG di nuyu ñëpp ñu fay liggéey yàlla taxawul leen lépp lu waay yóotu rek borom mi taxaw ko di ñaan encore borom mi boole leen ñëpp bu leen mos am wax ji sew. bu leen tontu détail borom bi booleel ngeen juboo ngeen doon benn na ëllëg mën ngeen jëriñ fu ne nekk ah yaakaar naa noonu la tàggooyee ah, waaye di bëggaat bu baax a baax nga xamante ni waa di waa Sénégal Buzz 221 ndax it réew mi lañ dëppee suñu bopp réew mee ñu ñor ba taxit képp ku ñu soxla ci réew mi rek bu ñu disponible lañ lay fekk ji nga génnee li nga xamante moo nekk sa xol ci loolu la ñuy dox ah ci loolu la ñuy jox di leen kontaanee bu a a baax mbokk yi di leen jox dig